leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy euh, topp bu leen fàttee abonné di bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen info nomination yi nga xam ni daal dinañ koy def fi nga xam ni moom biir réew foog moom général Kandé war a jóge fii dem ci fi nga xam ne mooy Inde ginnaaw de loolu ki nga xam ni moo di Mame Birame Wathie àdduna jëme ci kàddu googule am ci xalaatam ak gis-gisam ak ci leen li nga xam ne saa su ne ko gis ci mim réew du Sénégal mu nekk wàllum commerce ci jaay beek jënd bi ginnaaw bi nga xamee lu jëm ci wàllum suukar gi ñuy yokk ci mim réew mu nekk mbir bi nga xam ne daal dina yéeme waaye nag ma mbiram waaj xamle bu baax ba ñëw ci ki nga xam moo di Mimran mi nga xam ni moo yor campagne sucrière sénégalais gile rek bay fii wàllum suukar te gis nañu saa su ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci pegg Sénégal gile yu mel ni Gambie Mali ñoo ñu gën yombale suukar te Sénégal gii lañ daal di béyee li ñu mel ba loolee sax tax na moom laa mam biram waaj di ci xamle bu baax a baax loolu yëpp ñàkk taxawaay bi nga xam ni gis nañu yenn autorités yi am nañ ko di Sénégal waaye tamit di xamle bu baax a baax mën nañ ne France duñu name mukk ak duñu sant di gërëm benn yoon kenn ki nga xam ne saa su ne defaloo leen dara ana lan la général Kandé war a defal Macron ba tax na ñu bëgg kaa nommé li nga xam moo di Légion d'honneur sax nekk na mbir mi nga xam ni maam Birame Wathie daal di xam a baax autorités yi sénégalais yi le war nañ cee def ak taxaw seetlu bu a baax rawat na ki nga xam moo di président Macky Sall ak ay jegeñaaleem ñooñu ñi le kenn war leen bàyyi ci gouvernement bu yees bi ñu fi nekk lu toltaana boobu ba léegi daanaka sax maam Birame Wathie di addu xamle ba léegi ni mën nañ ne taxawaay bi nga xam jamono guñ toll nii war nañ kaa am jëme ci leen li nga xam ni moo dum wàllum jaay beeg jënd bi war nañ kaa xoolaat bu baax a baax ndax kat nekk na mbir mi nga xam ni saa su ne mim réew du Sénégal dañ cee bàyyi ak xam ni jàppandal bi nga xam ni nekk mbir yi nga xam ne daal di yéeme la ndax kat moom Mame Birame Wathie xam na ni jamono guñ toll ne saa bu négociation ba dañuy gis ni ñi nga xam ne ñooy yor jënd jaay beeg jënd bi te nekk nañ defaat ay njuuj njaaj ci yeneen facteurs yi facteurs yi nga xam ni saa su ne dafay nekk ay loo xam ni saa su ne dafay sonal askan bi waaye tamit dafay sonal Sénégal lam daa bi ndax kat daanaka mën nañ ne sukkar bi nga xam ne danañ ko jaay ci leen ci bitig yi wala ñu mel jamono guñ toll nii dañuy gis ni ci yeneen lañ koy jaay ci yeneen yi nga xam ni mooy secteur privé yi lu ci mel ni a dàq jeex a baax autorité sénégalais yi ñu laa ci teg seen loxo rawatina gouvernement bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi ak ministre bi nga xam xam ne moo yor wàllum commerce ci biir réew du Sénégal